senegal nag dañoo bëgg wax dañoo bëgg wax xëccoo dañoo bëgg lii presse bi di wax buzz kenn ku nekk bëgg ngaa wane ne man maa lii waaye loolu yëpp jaru ko li am solo mooy li nga am jaamu yàlla yi soxla ko nga mën leen koo jox ñi jariñoo fii yàlla may na Cheikh Ibrahim li ñuy wax alfayda tijaniya muy bunt boo xam ne képp ku jokk ci moom mu jokk la ci yàlla nga xam sa borom mën koo jaamu képp ku mën loolu def ko ku ko mënul itam libéral ñi nga xam ne soxla nañoo xam seen borom wala ñoom ñi libéré seen bopp wax ji loolu rek la coow lu bari li ak xëccoo bu bëri bi ak jéem a xastante bu bari bi loolu rek la waaye loolu war nañ ko dépasé fi mu nekk nii jaami yàlla yi dañoo soxla ku leen dimbale ñu xam seen borom loolu rek la yi ñoo ko bokkale téeméeri astafurlah téeméeri salaatul fatihi téeméeri laa ilaaha ak jawharatul kamal waaye nag ci biir tariqa bi yàlla mën na seeti benn benn may leen ñi mën a toxal li ci seen dënn yi yóbbu ko ci dënn keneen ku leen neex loolu mooy xam-xam bi nga xam ne moom la ñëpp soxla pour xam seen boroom moo fi dajale nit ñi fii suñ mbokki shérif yi nga xam ne seeni maam ñoo joxoon suñuy maam téere yi ñu doon jàngee seni maam ñoo joxoon suñ maam tariqa tijaan bii ñu amee bu ñu wëlbatikoo ñëw topp Cheikh Ibrahim toppuñ ko pour téere yooyu toppuñ ko pour tariqa boobu nga xam ñoom ñoo ko fi indi am na leneen lu tax ñu topp kon nañ bàyyi wax ji nañ bàyyi coow li ku mën a dimbale nit ñi dimbale leen boo leen mënta dimbale nga libéré leen wàññi li nga xam ne yàlla ko ab jaamam wax du ko indi ndax yàlla buy maye du tàggu kenn kon boo ko buggee ñaan pour may gi may jaamam bi mu nangu ko yàlla du ñàkk fayda ba di la déglu pour def loolu lim may kër gi doy nañu sëkk ñun bu yàlla waxoon ne lim ñi may muy faydu bi dootu ci teg leneen pare naag ñun dañuy sujjóot ñun ñëpp ne ko d'accord nañ ci loolu